day na weer wi desi na ramadan ñëw na weeru quraan ñu ànd booloo teeru ko ramadan a ramadan a ngi atfal ngi رمضان نجي بيت الأطفال بيت الأطفال بيت الأطفال بيت الأطفال رمضان بيت الأطفال بيت الأطفال alhamdulilah rabbil alamin naa torop torop torop torop torop kër goo xam ne boo ñëwee doo fekk kenn kenn kenn kenn kenn xale yi taxawaalu tambaa mbalu ah lii de am naa ci waaye solution du ñàkk lii dama ciy jóg bu baax a baax a baax a baax munoo heure boo tukkee ñëw boo ñëwee kër gi boo te doo gis kenn doo dégg kenn ah waaye waaye xaaral lii il faut ko seen papa lii moom solution day am subite subite subite munul ñàkk munul ñàkk woote léegi lay doon. salaamaaleykum waaw yaaram noo def ziar naa la mbaa lépp jàmm alhamdulilah. lenn de laa lay doyee xale yi daal la may bëgg a jaaxal bëgg ma ëpp loxo mënuma heure bu ma génnee ñëw ci kër gi duma fekk kenn damay woo te bay bëgg a kenn génn nañu taxawaal xawma fu ñu dem solution nag moom danga koy wut par aw par bi waxoon naa la ko li ñu waxante woon nañ ko def daara mënul ñàkk xale yi il faut il faut il faut ñu dem daara il faut ñu am dañu dem daara lii lii c'est trop daal mi ngi bëgg a ëpp waa baax na waa boo ñëwee waa boo ñëwee ñu xool am benn problème jërëjëf te jërëjëf jërëjëf nekkal ci jàmm ñu déggoo ci kanam jërëjëf ñii daa mën a nekk Binta Binta Binta waaw ma ah ba bëgg a dee fu nga nekkoon ñu ngi si biir rek ah, jaaxle naa dem ba ñëw gisuma kenn dégguma kenn woote bay bëgg a dee ana yi. ñu ngi ci biir. Ah, waaw baax na waa kaay kaay ma la boutique bi sax kaay. ak maa mën ngaa ñëw demal boutique wala mënoo ko. Ah, man damaa sonn nag xam wala maman sax moom mi ngi ci biir dara. damay bëgg a waar wala maal wala maman yow laa wax. ah maa waaye ñëwal yaay sama xarit kaay ñëw demal ma rek yaay sama xarit kaay dem boutique ba soriwul. ah su waaye dangay joxaale deux mille fu ma jënd demal ba ñëw boo ñëwee neexal la demal demal nga ma 6 kilos mburu bu ko defee teel a jënd mburu mu a ñëw nga tool ko gis sax sa xel xaw daal ndax li ma gis xaw ma ko lingerie fees dell ak boutique yi. demal waaw nag bu ah, man damaa man daal man daal man daal man daal maa ngi wàgg jàmm man daal am na fuñu éducation bi rëcc te xamuñu ko mais lii chantage la xale boo jur ci farata yàlla ak sunnas Muhammad sallallahu alayhi wasallam heure boo ko woowee pour yónni ko da nga koy fay parce que lii ñuy def chantage la te li xew sama kër moo xew fépp ah jot na ñun parents yi nag ñu lijjanti li xaw ma dañ koy réunion xaw ma dañ koy conférence xaw ma luñ ko war a woote waaye woote wuñu woote lu gën a urgence li lii moom leer na ma sama coono mi bëgg cee ànd ak man tam wax bay bëgg a dee xaar ma di wala wala mi duñ ma rey di ma dof lo maa sonn séddale bagage jàmbur yi dafay doy sëkk liggéey te du noppaliku ba ci kanam. baytul atfal xaalis bi une fiche. fii laa ko tegoon lii xam naa ne maa waxoon ne ma waat ko maa moo jël xaalis bi lii waaw maa yu sama xaalis. ñaata la. deux mille. yow foo jëlee 2 millions yi. baaxoo daloo ko man moom man gisuma sa xaalis de moom. maman wa li ma ko li ko jëlee loolu sa nekk si xanaa laa laaj ba xam xaalis yaa ko jël wala jëloo ko. gisuma sa xaalis. gisoo ko ngay wax maa gën xam ne yaa ko jël te ku ma tegaloon kaamil mu waat ko. yow Binta mënoo bàyyi ñaaw njott yow luñ teg yow sa xaalis bu leeree wala sa dara bu léeree nga ne man maa ko jël. de toute façon xam naa ne yaa ko jël waaw génne sama xaalis sama yàkkam te léegi léegi mu daal xaalis bi man maa ko jël léegi néeg man rek a fi ne xanaa xamoon néeg day am jinne te jinne dañuy sàcc maman eh, woon nag yaa ma yàpp taxaw na nag taxaw di ma ko fi jinne man gis ma fi jinne yow laa fi gis moi sama xaalis fu mu dugg yaa ko fi dugal génne sama xaalis léegi nag balaa ma ne wax ko sama yaay sa xaalis tegal naa la ko fee ci table ba yow mi yaa ko fa sànni tegal naa la ko fële ci ba li ngay tiit yëpp maa woon sax damaa waxul loolu maman kan maman ñëwagul ba tey kon maa ñëwee depuis sànq dama nga nuyu ko si néegam. tam xaalis nag dama ko jox léegi yow laa xaar. sa xaalis de yoruma ko man laa lay wax ñu ànd booloo teeru